yàlla nee na nekkal ci li ma bëgg rek ma defal la loo bëgg te bu ngeen dimbalee yàlla rek yàlla dimbal leen te sëñ Abdou loolu la doon def loolu la dundee ba ni muy ji borom te nag siiwalu ci dara te nag li mu doon def ci lu baax si siiwalu ci dara lépp nekk ci secret lépp daf ko def ci secret loolu mooy yàlla bu doon weeraate fu ñu jëm waaw mu ne bu yàlla doon weeraate ñun fu ñu jëm ku ne li la yàlla xamal bu ko waxoon waaye sëñ Abdou fa tabaarakallah yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla jàppale. yéen it yàlla na leen yàlla jàppale yéen it yàlla na leen yàlla jàppale. yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla leen yàlla seetaan. su ngeen bëgg seen liggéey. ngeen bëgg a yegg ci seen liggéey. ak la ca yàlla diggee. la yàlla diggee. yàlla leen ko yàlla yàlla na leen ko yàlla defal. ci la rasulullah. jërëjëf tàllal leen. yàlla mën na ko ah, ah, ah. ñëpp tàllal ñu ñaan sañ na ko man na ko. yàlla mën na ko yàlla na ko am na ko tàllal leen. kan mooy ñaan xalifa mu ne nga ñaar. sëñ Babacar Sy ñaar. sëñ Babacar Sy radiyallahu taala. sëñ Babacar Sy mooy ñaar. kan mooy ñaar. sëñ Babacar Sy. subhanahu wa taala allahu akbar ñu def fatiha salatal mala bu ne ñun ñëpp ku ne def fatiha salatal fatiha ayatal kursi ayatal kursi lixlaas falax lixlaas falax ak naasi yéen a ko jaamoo yàlla ñaan sunu borom yàlla na ko yàlla nangu. defal ñu ko hadiye ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ak njabootam gépp def ko ci yéen def ko ci yéen tamit. ci biir activité ci li ñu nekk. ci li ñu nekk. ñëw ak liy ñëw. lépp di yokkute te lépp di yokkute da. ci barke rasulullah yàlla mën na ko yàlla mën na ko. am na ko am na ko. sañ na ko sañ na ko. yàlla leen ko yàlla leen ko yàlla sàmm leen itam. yàlla sàmm leen tamit nag. ba ngeen mucc ci lépp aar leen tamit yàlla na yàlla mën na ko incha allah. dimbale yàlla mooy dimbale jaam yàlla nag mooy dimbale njabootam ji di jaama bi. yàlla yàlla na leen ko yàlla defal. seen toogaay bii. seen toogaay bii. yàlla na ci yàlla def yokkute. mën na ko mën na ko am na ko sañ na ko. te yàlla nag loo bari la bari la soo ko ñaanu rek mu mere la. boo yoroon àdduna ak li ci biiram. ne li ma yor doy na du ma ñaan yàlla. mu meral bu xëyee rek yàlla meral. kooku bëgg naa joxe wala kooku bëgg joxe wala bëgg da joxe. bëgg naa joxe bëgg naa joxe. ci am ñaari xel nag. buñ am ñaari xel mukk ci sunu ñaan gii ñu ñaan. kuy seeti ak koo mën a seeti. kuy seeti ab jaamub yàlla ak lu mu rëy rëy garaat. mën nga am ñaari xel dinaa amam ma am. waaye yàlla moom boo koy seet. am naa ne li may wut am naa. xanaa ngay wut lu bon. xanaa ngay wut ci moom lu bon. mu bàyyi laag loola. mu bàyyi laag lu bon la ngay wut. yàlla ngeen bale na ngeen wax ci sama séeréer bi ma déglu yàlla lépp lu ngeen nekk sàmmal leen boppam yàlla bu leen yàlla seetaan tey ñu ngi nuyu Tiwaawan ak le président de l'association

dañuy génn. dañuy génn. ah jërëjëf damaa waxee sànq ñoom ñu ngi à Tivaouane tey jii le directeur général des ASP monsieur Seydina Oumar Touré moo ñëwoon fii fii tey ASP yi nekk fii nii ak ñëw ziyaare si le khalife général des Tidianes fii ci Tivaouane alors Baye Ndiaye léegi oto yi mënoon ñëw gaare guddi Esplanade waaw waaw ñu nag noonu waaw. na ko doon gaaw ñu toll toll ci Yaya. xam naa xalif yi dañoo xaw a bëri donc dañuy dugg kër par kër maison par maison donc des xalif généraux fii si donc ñu def ko par étape ñu demee ba egg la ñuy xam si ban xalif la ñuy kii quoi man personnellement ci lay xam si ban xalif la kii

noonu lay fonctionné moom lay fonctionné quoi. pour que kilifa yi nekk moom bu génn. les membres de la délégation, les offices de la direction. waaw amin amin amin amin Yàlla yàlla toog toog leen bisimilah. toogal nañ ñu ngi wàññeeku. bisimilah.

salaamaaleykum gars yi comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure on est toujours à Tivaouane ñoo ñëw ci kër sëñ Mansour lañ euh, ci daaray sëñ Mansour Non, ba sonn nañ Abdallah Dieng. Dieng.